ba tey rek mu di seen émission hashtag news ah, di ci dalal monsieur Diaklar, Lakh di responsable politique euh, nek batay membre coalition gox yu bees Mermoz Sacré-Cœur ça fait biir waxtaan wi doon qui ñëw ci gox nga Sacré-Cœur coow la de fi mu Mermoz. waaw Mermoz euh, coow la fu mu parce que euh, d'abord dafa on commune boo xam ne. ay acteurs politiques de premier plan ñoo fa nek, fa également ba léegi tànnaguñu sunu maire donc euh, mu y problématique pour problématique. Euh, un fait inédit voilà au Sénégal c'est la seule commune bi nga vraiment maire bi a été au suffrage universel direct. donc nous y lo Hamé alerté pendant la campagne un peu avant la campagne mais mu une incohérence le euh, résultat dialogue politique national parce que principe d'équité donc devant la loi devant la constitution a un rôle am parce que population de Sacré-Cœur yi du ñoom maire mu nekk mbir moo xamante ni alerté woon ngeen ci wala ndax bu dee dañ teg ci plan yi rek bokkoon na ci lu ngeen tegoon xam ni bu kii jëlee mbir mi war muy Barthélemy war a nekk maire bu ville nekk maire commune boobu aussi mel ni loolu tegoon ngeen comme hypothèse. waaw ci hypothèse yi la bokkoon moo tax euh, très tôt ona alerte on a nañ ko. Euh, mais xam nga langue politique bi y euh, souvent yenn acteurs yi en fonction des intérêts du moment dañuy bàyyi yenn yi jall bàyyi yenn yi mu mu bañ a jàll mu doon lo xamné dañu ñaawlu mais je pense que fait inédit bi warna tax ba dès que ñu génn ci li euh, assez rapidement que les acteurs politiques puissent vraiment revoir la copie et mën yemalé dal commune Sénégal au même titre ku nekk am vraiment la possibilité tanal sa bop sa euh, législative aussi monsieur monsieur monsieur euh, d'après hein, juillet 2022 lors conseil des ministres lui, war a a euh, d'abord je dirais respect calendrier parce que dafa doon acteurs politiques. politique pour que vraiment calendrier électoral bi ñu bañ di ko saax-saaxee di ko changé euh, tey nag euh, date bi jàpp nañ ko 31 juillet waaye ci kaw loolu euh, faisabilité bi ci ci loolu la ñu war a gën parce que tey élection yoo xam ne la parrainage day am donc euh, du lu yomb donc euh, élection nationale ak parrainage la euh, révision liste aussi dina dina am donc yoy yëpp mu don ay points yo xamé euh mun en tout cas suñu ko traité wul de manière efficace indi dal ay ay nasaxaay ci organisation élection yi ñu jëm. monsieur Rakh maa ngi lay jaajëfal mu doon seen émission hashtag news gannaaw Babacar C'est une application bi ñu teew nañ wala leen daan ak Facebook Twitter Instagram suñu chaîne YouTube pour di jaajëfal en tant nga xamni mo moo ci digital bi.